coow topp na actrice bii di Marichou ci màggalub Touba atub 2020 bi ba tax na rek moom moomee du ko gaaw a fàtte moom nag Marichou daa dem rek ba si juma bu sell boobe ca Touba dal di fay teg woyu Carlou di bu mu woy rek Serigne Touba Xaadimu Rasul di ko fay sinap musique boobee nag mu teg si juma ja doon lu choqué murit yi tax rek askan wi ñu bëri di ko si rek dal di koy critiquer ak doole si noonu Marichou di jéggalu rek ñi nga xamante ni ñooy communauté. murit gi ak askan bi yëpp eh, ci benn nag eh, bataaxal ba nga xamante ne ni moom la fësal eh, xam leen ni rek mi ngi jéggalu képp ka nga xamante ne ni vidéo yi mu def ci juma bu Tuuba bi métti na la wa illaa rek nakkarlu nga ko rawatina ñii di communauté murit gi yëpp ba loolu weesoo Marichou ne sax ko taxoon a def yooyu les vidéo du ngir kenn wa illaa rek du ngir rek kenn am si lu ko waaye nag sëgëm demee na ni mu demee mi ngi rek tuub di jéggalu ñëpp moo xamle ko moom actrice bii di Marichou ñu gën koo xam ci série bii di Pod et Marichou. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi euh, diaspora bi euh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen siyaare di leen laabire rek nit ku baax ku jub ku sell koo xam ne jubbantikat la yarakat la. xencu nag su suna Seydunaa Muhammad ci la nekk yàlla dénk ko xam-xam bokkoo laabire jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi ci njàqare ñu ngi ci tiis jaaxle lool ndax ko ne xam ne ne jamono bii ñu nekk jamono la boo xam ne koo ci gis mi ngi naan damaa bëgg a bàyyi cigarette damaa bëgg a bàyyi yàmba dama bëgg a bàyyi pon damaa bëgg a bàyyi drogue waaye képp ku jëflante ak moom ci kàttanu yàlla ak yonent bi dana génn sama xel ba jeex ci tàkk ba jeex ci tàkk ma bëgg nag ngeen seeti ko ndax alxuraanu yàlla ji rek lay wétali ko ak suna Seydunaa Muhammad bi nit ku baax la nit ku jub nit ku sell nit koo xam ne tubaarkàlla macha allah li ko suñu boroom dénk lépp da koo delloowaat askan wi yemu ca dacaabale nag képp koo xam ne da ngaa amee tànk yu metti mbaa ndigg luy metti mbaa bopp bi metti mu la jël la ñëwal nga jëflanteeg moom am na fas goo xam ne bu la ko joxee ci kàttanu suñu borom di nga tàggalikoog moom fas gi nag bu la ko joxee di nga toog diirub ñetti weer yoo xam ne doo jëfandikoo ginaar loolu moom xam naa faale ne jege ni du leen arrangé waaye fas googu baax na mbaax goo xam ne bu la ko takkalee ci kàttanu sunu borom di nga tàggalikoo ndigul yu métti tànk yu métti bopp bi métti ndax fas gi loolu lay jëriñ yemu ci dajaa boole mag muy tuur ndox xale buy tuur ndox boo ko boo bu la ko defalee de incha allah loolu dana génn saw yaram waaye yemu ci dacaa boole ku ne xam ne ne jamono bi ñu nekk jamono bu rëb la jamono bu yàqu jamono boo xam ne da nga yar sa njaboot ci biir kër ab sàmba booy mbaa nit ku bon dikk dugg sa biir kër yàq sa njaboot su su njaboot gu jigéen am na loo xam ne nag moom la koy ñagee seeti ko ku fa dem mu ñagale sa njaboot ñagale sa bopp sàmm la ginnaaw sàmm suñu borom aar la ginnaaw aar suñu borom ndax li ko suñu borom jox lépp da koo delloowaat muy kilifa goo xam ne kitaabu rabbi kaane lii wakkuntu loxowu lillaahi bi sa konta nit ku baax la nit ku sell nit ku jub koo xam ne sunna xam ne rek lay wéttali ko seeti leen ko ku fa dem mu fat la te comme fa doo naan biti li ko yàlla dénk lépp delluwaat na ko askan bi waaye képp ku bëgg a tàggoo cigarette yamba poon ba ci dorog ak mag muy tuur ndox ba ci xale muy tuur ndox boo ko seetee mu fat la te comme fat doo fanaan biti yàlla na ñëpp am jàmm